Djibril Gningue maa ngi lay nuyu. Euh, Awa maa ngi lay euh, fay. alors de électorale di la bokk tamit ci euh, GRADEC tey ñu gis ni euh, législative yi nga xamante ne moom la ñuy waajal fukki fa ak juróom-ñaar tax na rek njiitu réew mi fi mu toll nii euh, jotoon na addu ci ay ponk yu bëri ci ab benn point de presse di woolu nag acteurs politiques yi ñu fexe ba woot indi li nga xamante ne lépp luy responsabilité waaye tamit def dal ak tekk tekkaral ci li nga xamante ne rek mooy législative yi anan nga jàngatee ay kàddu. waa <clears throat> ni ma ko jàngatee mooy loolu njiitu réew mi def Bassirou Diomaye Diakhar Faye ah, lu baax la te euh, dëppoo na ak euh, li nga xam ne moom la situation bi laaj euh, ndax Sénégal dafa nekk ci situation boo xam ne moom la ñuy wax crise politique loolu nag mi ngi tàmbale deux mille vingt et un ba deux mille vingt quatre bii ñu nekk loolu taxoon na ba ñu jàpp ñu bëri tëj leen ba mu àgg ci junni ay junni junni détenu hmm. ah ñii ñu rey leen ah, ñi ci ñàkk seen bakkan dem na ba ci ah, juróom fukk juróom-ñaar fukk am na ñuy wax sax juróom-ñetti fukk am na ñu ci ñàkk seen liggéey ñii seen jàng yàqu na ci ah, ñii làggi nañ ci ñii ñàkk nañ ci seen alal alors loolu muy benn ñaareel bi mooy que bi nga xamee ne euh, dépôt dossier déclaration candidature yi euh, commencé na amoon na tuuti euh, dison tension bu jogoon diggante ministre de l'intérieur ak lenn ci waa opposition bi bu yàggul rek ci bi nga xamee ne euh, am na waame boobu am euh, ca euh, bëj gànnaaru réew n'est-ce pas mm-hmm. ba mu amoon benn karawaan bu opposition bi def lenn ci opposition bi def jëm foofu aussi amoon na ay xët-xët ak ay disons fitna yu yu jógoon mm-hmm. donc loolu yëpp boo ko gisee da ngay xam ne taxawaayu njiitu réew mi appel boobu mu def pour que ñu dugg soobu ci élection yi ci jàmm mhm. éviter euh, moytu lépp loo xam ne dana indi fitna dina indi jëye euh, euh, da ngay gis ne loolu taxawaay bu rafet la taxawaay bu dëppoo la ak li nga xam ne moom la situation bi laaj comme ni ma ko doon waxee léegi alors euh, mu woote yi tamit euh, ngir ñu fexe ba éviter lépp loo xam te ne ay dérive la waaye tamit ay discours euh, ci actes yi nga xam te daanaka mën na nduru tamit lu mel ni violence. waaw xam nga code électoral bi dafa consacré li ñuy wax immunité maanaam kiiraay candidat yi ci élection dañuy am kiiraay dañu am immunité maanaam kenn mun leen poursuivre wala ñu jàpp leen ci euh, act bu ñu posé wala lu ñu wax ci cadre campagne bi waaye nag foofu attention parce que bu génnee cadre campagne bi maanaam dérive loolu mooy dérive ci tubaab hmm. bu génnee cadre campagne bi mën na relever du pénal maanaam bu boobaa mën nañ la poursuivre mën nañ la jàpp mën nañ la juger alors donc euh, diggante li nga xam ne euh, ci cadre campagne nga koy def ak euh, li nga xam ne day génn da nga koy def ci biir campagne bi mais dafay génn campagne bi ah diggante boobu dafa sew alors loolu moo tax dankaafu boobu mu def mu doon loo xam ne lu baax la defe naa dina fàttali ñëpp ne war nañu euh, am liberté ci campagne bi bu yaatu euh, mais nag ñu sàmmonte ak code électoral bi sàmmonte ak loi yi ak règlement yi sàmmonte ak euh, war ma bi nga xam ne war nañ ko am euh, digganteeg réew mi digganteeg institution yi. Hmm. alors nan nga jàngatee tamit euh, lancement campagne bi jëm ci élection législative anticipée yi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2024 mu mel ni démb la tàmbali. waaw waaw campagne bi commencé na disons le 27 maanaam c'était le 26 à minuit. Hmm. à partir de minuit. gisoon nañu déjà ne état major yëpp. nekkoon nañ sur le départ euh, démb euh, également euh, def nañu seen déclaration ñoom ñëpp à la RTS ndax hmm. campagne électorale ay déclaration la ay meeting ay réunion ak ay ndaje hmm. yow nag yaay tànn lan nga ciy def bés bu nekk lan ngay def maanaam da ngay am sa programme campagne hmm. dafa mel ni nag ñoom ñëpp déclaration la ñu tàmbalee waaw quarante et une listes yi ñoom ñëpp def nañu démb seen déclaration mais gis euh, gis naa ne également soobu nañu ci bu baax ci campagne bi parce que ñoom ñëpp ñu ngi ci biir réew mi fi mu nekk. alors mu mel ni fi mu toll nii am na quarante yoo xamante ni ñoo taxaw tem ngir mën a dem ci législative anticipée yooyu li euh, mu bokk ci ay parti ba ci euh, coalition ana nan nga ko gisee. waaw ma yokk rek ci li ma doon wax léegi ci démarrage campagne bi. Mhm. donc mën nañu jàpp ne malgré quelques tensions yi nga xam ne jógoon na. Euh, n'est-ce pas ak des euh, désaccord ñàkk dégo yi nga xam ne amoon na diggante ministre de l'intérieur ak euh, yenn coalition yi malgré ça la campagne euh, a démarré normalement et jusqu'à présent se déroule normalement hmm. waaw loolu bëggoon naa ko yokk ci limoxoon ma léegi alors liste yi nag bëri nañu te li ko waral mooy que parrainage bi nga xam ne daf doon tax liste wala candidature yi du bëri bëri waay boobu parrainage boobu amul ndaxte euh, ni ñu ko tëralee ci code électoral bi dafa mënul woon ànd ak élection euh, anticipée moo tax conseil constitutionnel daal di daal di koy daal di déclarer ne parrainage bi dañ koy supprimer bi yoon du am. Hmm. loolu nag moo indi liste yu bëri yi. alors liste yooyu nag en mille 2017 amoon nañu sax lu ko ëpp. waaye terewul Sénégal am na xarañte euh, am na administration boo xam ne maitriser na organisation élection yi ba nga xam ne organiser woon nañ ko euh, mu jaar yoon mu génn ci élection yi ak ay résultats yu leer nañ kon nag bi yoon aussi côté organisation hmm. moom xam naa ne du am benn problème ah mais euh, li muy posé problème bi mooy li nga xam ne moom la ci réew mi di dugal ci koppar bëri na lool lool lool lool toll ci ay milliards yi yoo xam ne euh, xajoon na feneen euh, ndax li ko waral mooy que code électoral bi hmm. dafa ne liste bu nekk war nañ laa imprimer war naa war nañ laa defaral ci ay bulletin lu tolloog limu mu électeurs yi te électeurs yi toll nañ ci sept millions et ba pare yokk ci vingt pour cent maanaam tey jii boo ko xoolee liste bu nekk war nañ laa imprimer war nañ laa defaral lu toll ci huit million ci ay bulletins loolu nag huit million boo ko fuulee ci euh, ñeent fukk ak benn dafay daal di bëri. Hmm. te da jàpp ne bulletin bu nekk mi ngi mi ngi euh, jar trent sept francs loolu kon ñu gis ne ay milliards yu milliards la yoo xam ne yi réew mi mën na ko économiser alors moo tax war na réew mi war nañu mën a dem ci bulletin unique. bulletin boo xam ne candidat yëpp ci lañuy ñuy nekk hmm. voilà comme ni ko yeneen réew yëpp di defee euh, dans la sous-région et en Afrique hmm. ñu gis ni euh, hmm, fi mu toll nii enjeu yi bëri na loolu pour yow lan nga ci jot a jàpp ci euh, li nga xam te ne mooy élection législative yi waaw enjeu yi bëri na effectivement bëri na lool lool lool bi ci njëkk mooy que parti bi nga xam ne moom moo nekk ci pouvoir bi Euh, te réew mi wote leen woteel woteel leen woon ci présidentielle bi à cinquante quatre virgule vingt huit pour cent enjeu bi mooy que ñoom fu mu nekk nii dañu minoritaire à l' assemblée nationale ñu bi mooy ñu am majorité confortable hmm. ci assemblée nationale alors majorité confortable nag boo ko déggee mooy majorité absolue bi 83 député la maanaam 82 ak nga teg ci benn ah majorité ah, trois cinquième pour mën a voter ay loi organique dem na ba quatre vingt dix neuf ci ay député au moins ñu am loolu quatre vingt dix neuf nga xam ne du ñu am jafe-jafe jàllale loi organique wala loi ordinaire waaw loolu amul li am moy li li am actuellement nga xam ne dañu témboo wala genre cohabitation loolu nag baaxul parce que dafay indi instabilité institutionnelle alors day indi ñàkk déggoo entre ñaari institution yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi di ko gouverner di ko doxal loolu nag gis nañ ko ci ay réew fii en Afrique jéyee yam fa indi ak fitna yeeg jéyee yam fa indi ci kaawu Niger 1995 alors bi nga xamee ne opposition bi ñoom ñoo gagné assemblée nationale bi alors euh, fi mu mujjee mooy que dafa am coup d'état réew mi dafa bloqué Euh, général ba euh, Ibrahim ba Baré Mayna Sara def coup d'état 1996 hmm. moom ci boppam dañ ko mujj assassiné ca weer ya ca topp gis nañu aussi fii ci suñu wet Guinée Bissau réagissé président ba fa nekk Imal Embalo euh, partem ci élection législative yi gañewul ñi gañe mooy PAGC ñoom ak euh, parti Kumbaya Kumba Kumba allié ñu ñu ànd ak parti Kumbayela ñoom ñu am cinquante six Kumbayela am douze ñu boole seen ay député nekk majoritaire à l'Assemblée président bi ak ay ak partiam ak ay nitam minoritaire ba mu mujjee mooy que ñaari par pàcc armée bi jàmmarloo pour xeex président bi imbalo ne <laughs> dafa am coup d'état bu ñu bu ñu bëggoon a def daal di dissoudre assemblée nationale alors Guinée Bissau boobaak léegi mi ngi ci situation ci diggante boobu ah, mu nekk diggante bu bu doy waar alors donc loolu mooy premier enjeu bu njëkk bi mooy que parti bi nekk ci pouvoir bi am majorité bu confortable loolu du tere opposition ñu am fa une représentation quand même assez significative mm-hmm. alors ñaareel bi mooy que comme suñu réew réew Sénégal bii ni ma ko waxee sànq deux mille vingt un ba léegi dafa nekk ci fitna ci crise politique bu garaaw a garaaw mooy ñu ñu mu génn ci crise politique boobu te li ko ciy génnee mooy lu mel ne li Afrique du Sud defoon commission vérité justice ak réconciliation bu ko defee ñu xam ku nekk la nga def lan la kan moo def lu tax nga def eh ñu ci mën a baal ñu baal leen ñi ci euh, ñu ñu atte ñeneen ñi ñu ñu atte leen ñu atte leen plutôt ñu atte ñi nga ñi def ñëpp ñi ci mën a baal ñu baal ñu ci war a topp ñu topp leen loolu pour indi jàmm ci réew mi jubóole waat réew mi nit ñi mhm. alors loolu am na solo parce que loolu bu amulee développement du mën a am réew mi du mën a dem fenn troisième enjeu bi ñetteel bi mooy ñu am une assemblée constituante li ñuy wax assemblée constituante loolu de indi ñu am beneen constitution ñu tëgg constitution bu bees ndax depuis 1963 ñi ngi ci li ñuy wax deuxième république maanaam ca constitution bu 1963 ba léegi réew mi ca lay dox léegi nag li xew ci réew mi diggante 1963 ak léegi ak fii ñu toll ci développement nga xam ne soriwul def nañu lépp waaye mënuñoo dem fenn pour régler problème yi réew mi jànkonteel loolu dafay wane ne Euh, deuxième république bi mënuñoo yóbbooti fu sori dafa agsi ci ay limitam donc il faut ñu dem ci troisième république loolu nag li ñu koy may mooy mu am une assemblée constituante alors boobaak léegi président de la république yi ñoom ñooy initier ay changement de constitution mais boo bëggee ñooñu loolu ay modification rek la mais boo bëggee tëgg constitution bu bees da ngay def lu ñuy wax une constituante te loolu assemblée nationale lu mel ne assemblée nationale moo ko mën a taxawal loolu aussi enjeu bu rëy la pour ñu am rupture bi nga xam ne moom la autorités yu bees yi di wax lu dul loolu euh, gisuma feneen fu ñu mën a jaar pour am rupture boobu <laughs> Djibril Gningue jërëjëf may fàttali rek ne expert électoral nga bokk tamit ci GRADEC ñu ngi lay jëfal bu baax a baax voilà jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax